dafa dee ni nit mënatoo wax lu raw lii mu wax ndax kàddu yu dëggu la nee dafa bëgg ñépp ñaanal ko nee na sëriñ xaadim Gueye mii lépp lu ko waay defal nee na moom mii nga ko defal ne teg na ko fi mu ko war a teg sëñ Ablaye Seck ay wax de nee moo tax xolam sedd ci moom lool ne kon ñu ngi lay ñaanal ci bari barkib sëriñ Tuubaa xaside yi sunu boroom gën laa sàmm gën laa aar barke sëb dund barke sëriñ baara sa maam sëñ xaadim sa rakk ngi nii toog di sëriñ mor sàmm di nit ku baax 9h ba léegi la woon waaw sa fa jàng sax taxut ma yëkkati waaye bëgg jot ci rajo bee tax dafa am ñaari kàddu yu ma bëgg a wax rek balaa sëñ xaadim ma jël dal seeti nan di jëmal cant gu rëy gi ñu la ëmbal ngir yaanu may lu xel Ahmadu Mbàkke na ñëpp wax Ahmadu Mbàkke jërëjëf wala way wi neexu leen dal di jëmal cant gu rëy gi ñu la ëmbal ngir yaanu may lu xel dajul Ahmadu Mbàkke jërëjëf deseeti nan di jëmal cant gu rëy la ëmbal la ngir yaanu xel dajul ahmadu mbàkke jërëjëf yaatan na saw gaay ca asal kenn yëgul def leen ni kenn yëbul ahmadu mbàkke jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf ahmadu mbàkke jërëjëf jërëjëf war na leen war naa Ahmadou Bamba jëf léegi li ma bëgg wax mooy dam ba duba yooyu dafa am ñaari baat yu ma bëgg a seede sëñ xaadim mii ba lay jël kàddu dafa am bis ñu ànd dem jàngi Medina Sabax ca ginnaaw Medina Sabax dëkk bu tudd loo Looyeen biñ ñëwee tëdd ci néeg bi di dallu avant ñuy nelaw ndekki ba tëdd mu tëdd ñu tëdd ñoo bokk nekk man moom dan saw male génn góor gu weex tàllak bi jaaw dugg si jàpp ci loxo xale boo xam ne nii am na fukki at ak ñett ni ko kii yow laa ko tuddee woon te musuma laa gis keroog sëñ xaadim dane bëreet jug ñu jug suñuy nelaw naaw keroog ba timis mënuñoo fexe ba nelaw loola nag def ko ab jël bi góor gi demee mu daanu ñu waxtaane lu baree baree baree bari mu daat ne man li ma bëgg a njukkalee sëñ tubaa ginnaaw liggéey bi may def ndaxte ñi may tuddee seeni doom yi xëy na ak cofee la tax waaye bu dee xamuñu li taxit ñoom man xam naa li tax xam naa ne sëñ tubaa tax li ma bëgg a njukkalee sëñ tubaa mooy def daaray alxuraan joo xam ne ku nu ma tuddee ti man laaj la say waajur dugal la ca daara jooju doo fay doo tilim doo yalwaane ma def ci yow alxuraan ak xasida ak yaru murit mi ngi nii loola nag mën naa ne moo jur lii lépp tey ba bërki démb ñoo mujjee ànd turandoo yi mu am moo ëpp ay atam soixante-deuxième turandoo te am na ñum xamul ndaxte kooko noonu jàpp ci loxo xale bu am fukki at ak ñett ñëw ne ko kii yow laa ko tudde woon te at mu jot ma màggali Touba mosuma laajte sa kër kooku yàlla tax na def ko këram gee ca Touba boo demee ñi ko bëgg ak ay wëllëreem seeni doom moo ëpp mbokkam yi fa nekk léegi nag moom loolu xam na li tax ñi ko defit dub dof xam na ni sëñ tubaa tax te sëñ tubaa lépp lu am ci àdduna alxuraan moo ko ko gënal léegi nag looloo woo mat liggéey bi yépp mu ne man li may njukkalee sëñ tubaa mooy def daare alxuraan am na lu mu ko defee yàlla mi sédd ñëpp fàttewu ko li mu def ni yaatal la rek ku nekk naan joxe naa deux tonnes ñii naan joxe naa trois tonnes mën naa làmb ci poosu boppam def ko yàlla jox na ko lu mu ko mën a defal waaye lu baax dañ koy yaatal ñëpp ca moom li mu def nii dafa dimbali nit ñi ku ci def sa alal xamal ne dimbali na la ndaxte daara jooju bu taxawee fii ak nga ngi fay jàng ku fa mokkalee aw araf wenn araf rek yàlla di ko fay di fay ka ca def alalam kon nag ñi ngi ñaan li nga bëgg a mébét nii yàlla na sotti te bu sotee yàlla na nu ko fekkee ñun ñëpp yàlla bu ko kenn wuutee